coronavirus gi dugg na fa kilifa yi gàllo wàllu wér gërëme ci Italie ñoo ko xamle ba xamle téeméeri nit ak fanweer ak ñaar yu ko fa amee dëkk bi di Lombardie nga xam ne lépp ci muudu muudu yu fa la fare nemmeeku nañu fa juróom-ñett fukki nit ak juróom-ñeent yu ko fa amee moo waral dëkk ba di Lombardie ni ñu def Wuhan ga Chine la ko def dañu ko ber mettre ko en quarantaine Boubacar Seye njiital Horizon sans frontières di ñu yëgal ci biir l'Observateur lii fu ko waay nat rek weesu na ko l'observateur tax nañu am na fukki réew ak ñett ci Afrique yoo xam ne organisation mondiale de la santé sant na leen ñu jël seeni matuwaay te jekkal seen toogaay ci réew yooyee suñum réew di Sénégal ci la bokk ndax duggante gu mu dugganteek réewum Chine yéenekaay bi di l'observateur xamal ñu it abri yi ñëw comité de crise bu ñu war amal tey ji ci Ndakaaru ngir yokk matuwaay yi wàccuwaayu Ousmane Tanor Dieng yayoo Soleil national nee nañu ci xëtam mu njëkk ñëpp àndandoo nañu jox ko ko yëral yéenekaay bi waa parti socialiste ñoo doon bi ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall Vox Populi ne ko du woon moom rek ne bari nay kàngam yu nekk ci géopolitique bi ñoom ngi fa woon journal bi gis ne homme d'état dëgg mooy Tanor Dieng ndax donte ma nga ca barsàq terewul mi ngi dajale ñu dul jaaro optal fii ci daaru dunya Tanor tax na Macky Sall gi Idrissa sekk daje ba joxante loxo photo bi ci xët mu njëkk la di ko dëggal Macky sàll muy nuyu sa Seck ak ñaari loxo boole kook ree ju neex idi moom it ko jàkk di ko ba dégg jéey feeñ le quotidien bi ca maison du parti la woon ba ñuy sargal Ousmane Tanor Dieng Macky Sall dafa doon père Ndiaye Idrissa Seck nag président Macky Sall wax ca ndaje ma ne réew mi di Sénégal ñun ñëpp ko bokk mbooleem luy indi ak réeroo des ko fee war a jëlee te booloo doon benn beneenub journal bu gis ne Macky Sall da doon daraagi Idrissa Seck mooy la Sénégal suur ne ko ak Alaaji Malick Gakou ñoom ñaar ñëpp la Macky Sall doon piis ak Père Ndiaye Les Échos nañu njiital parti socialiste la woon di ndeem seela Ousmane Tanor Dieng dajale na Macky Sall Idrissa Seck ak Alaaji Malick Gakou gis-gis la ci mu dee li ñuy ruumandaat naan makeeg idi dañuy dil ak baara yëgoo réew bu doon dëgg nag Mohamed Boun Abdallah Dionne nag moo xadd kaaba gi libération nañu déclaration bu rëy la def nee na diggante Macky ak Sénégal la jëm ci la Sénégal ñu gisaat fa déclaration bu Mohamed Boun Abdallah Dionne bi mu ñu naan fa diggante Macky ak waa Sénégal histoire bi jeexagul grand place jàpp ne Macky Sall dafay ndax ku ko jege lool di Mohamed Boun Abdallah procureur moo ci des libération moo ko bind sunu làmb xëy bind ay kàddu yu mu nangoo ci mbër mi di Bombardier B52 nee na état bi li mu war a def moo di jëlee CNG bi ci loxoy Alioune Sarr ak ko gàngooram dénk ko keneen bomb ne làmb ji mi ngi dund ay jafe-jafe yu rëy mu ne su amul combat ci saison bi dafay bàyyi làmb ñu làmbi meneen mbër ci beneen yéenekaay mu di Lac de Guiers 2 mi ngi ñuy wax ci journal Les Échos ne combat triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 ak Boy Niang combat boobee du fi amee li am ci xët mu njëkk suur ku ko gis di nga ko rey fii ba gee Montpellier bi muy wax ca la xew ca COUD di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru ca la ne Cheikh xaalis bi mu ne moom la jëndee poobar bari na bari boo xam ne waxuma la université ak étudiant waaye poobar ba war naa mën a poobar waa Ndakaaru